ngeen man dama leen di jàpp comme mbokk fu ngeen dee ma def fu ngeen naajee ma naaje li kii maire wax nag Kébé kooku nit mën na ko dóor ci alxuraan euh, deux mille douze mm-hmm. à nos jours mm-hmm. ba mu jeex mm-hmm. birig tegu fi bu fi état du Sénégal defal école déglul ban baax lu ma c'est école dara def du forage du bâtiment du hôpital du loo xam ne lii huit de suur yi ñu dimbalee ñuy bay ñu ne leen nañ leen dimbali ci nawet gerte gi ñu bay barki démb kenn amul foo ko jaay juróom-ñaari noonu la da nga koy wanteer fanweer ak juróom waaw nguur nag bu fekkee juróom-ñaari am na ko ku fi béykat defalu la jiw joxu la ceeb ne la dund joxu la jiwu joxu la forage joxu la école joxu la yoon joxu la fajukaay tegu ba ganaar loo xam ne dañu naan ci nguuram lañ ko ba def képp koo xam ne yaa ngi koy wateel bëgguloo sa réew lu waay mënul def juróom-ñaari at ko juróomi du waxu politique waxu ak laayi taala la te mën nañ ko dóor ci alxuraan département Kébémer kenn du ne def na fi xañ na nag xañ na dañ leen di xeex ndax Abdoulaye Wade fi waaye it du ne min naa jul département yëpp sur le plan national département yëpp nii la mel mi ngeen xam bu baax nit ñi ni kenn ku ne candidat nga